man jàpp na ne mënut a waxee lu dul nii mu waxee dong dong daal ndax xam nga e, taal ak lakk ak e, yàq moom dëgg-dëgg ci diine mënoo layal ak nit lu mu mer-mer lu mu nekk-nekk ci jafe-jafe doo mën a wax ne ci diine may na muy taal ak yàq kon kilifa gu tamit kilifa noonu dong da ci war a mën a taxawee delloo leen ci e, génn ak kilifteefam ni mu génne kilifteefam daa yërëm daa ànd ak yërmande lool daal. makita bi makita bi makita wote wote wote googu mu leen woo ña ñetti yoon kooku day mel ne xamante na ak ñoom xam ne ne lu mu leen wax ñu def ko xam ne tamit déggal nañ ko xam ne tamit mooy ñoom ñooy moom ak bëggante am na ci ak déggoo am na ci mel ne ne juumoon nañ wala meroon nañ am na luñ tolloon loo xamee ne mënuñu ko muñ xam naa ne waxuñ ko ko wala bañ ko ko xamee xale it moom it nee na li ci gën a yéeme mooy jël responsabilité am nañ bàyyi ba suba ñu xam lu mu dam ndax lii lu fi mus am la loolu nag damaa jàpp ne kilifa noonu la war a taxawee mooy mbir mi doo jël say baaraam rek génn ca bàyyi ñuy yàq yàq boobu daa neexut a cautionné nag ci diine rawatina nag ku yor yenn responsabilité ba doon Sëriñ Tuubaa man mi rek di as ndong ndong ndongo ak ndongo yi bu ma don wax ak mbolo mi dama len di calmer dama len di delo fa wara delo nenañ bayyi benen bi nak dekk bi ak wayam nga xamee ne eh, ñoom dañoo dàq seen république seen seen républicité ne ñoom wàllug ay citoyen ay seen citoyenneté ñoom xoolatuñ ko seen côté taalibe bi moo leen gën a yitteel eh, ñu jaay seenu li sëñ Fallu defoon jaay ak ak ak njuróolam jëndee ko sëñ Tuubaa jëndee ko taalibe ñun tamit daa mel ne ñun taalibe sëñ Tuubaa dañoo jaay sunu citoyenneté te jëndee ko ak taalibe taalibe moo ñu la xool suñu bopp lañ gën a xool suñu bopp que doon ay citoyen citoyen bu ñu waxee nag ci cadre citoyen ne ab citoyen citoyen nag sañ na nag ñaxtu moom sañ naa ñu def ko lu mu gisul ci am réew nu muy doxe mu baaxut mu sañ na ko waaye ñun fii ci ñun ñi ñu tànn dëkk sañ sëñ Tuubaa tànn ñu tànn boobu dañoo tànn doon ay taalibe kon lu ñu fi def rek mbir mi daa dem ba ëpp ba mënuñu ko ñun moo tax ñu def ko waaye def gi gënaluñu ñun doon ay taalibe sëñ Tuubaa ñu gënal foofit la sëñ bi waxee mooy ne ah yéen de yéen a waxoon seen pacte rek ma leen koy fàttaliwaat yéen a waxoon ne kat yéen taalibi sëñ Tuubaa ngeen bëgg a doon kon ma doon seenum sëñ Tuubaa bu dee maay doon sëñ Tuubaa it na sëñ Tuubaa doon taxawoo ay taalibam la leen foo leen jaaxlee bu ma ko yégee jug dox ca sama tànk la ma man lépp ma ànd nag day mel ne sëñ bi wanewaat na ko ndax eh, eh, yéenay samay taalibe maay seenub sëriñ bu lu leen naqari rek wax leen ma man it dinaa ci jéem a def loo ma man dafa mel ne nim ne bàyyi lu xaw ñu bàyyi bu suba ñu xool kon japp na ne fofit delo delloo nañu ci euh, l'essentiel deug deug mu def benn tom xamé nak moy euh ndax ab citoyen sañ na defé nonu euh, bien sûr guys ab citoyen sénégalais sañ na euh, ñaxtu sañ na def lolu waaye dama japp ne rek li ñu lié ak sëñ bi ëpp na citoyenneté li ñu ak sëriñ bi pacte la pacte baatin Euh, ak leer la ak bëgg yàlla ak xeeñ ci yàlla àdduna euh, bokk ci euh, boo ko defee moo gën a for àdduna moo gën a for lépp kon pacte boobu wuruñu ko foowee tamit nag mu des nag kon nguur gi moo war sant suñ mu taxaa milliards yoon sukkal ko raamal ko gërëm ko te xam ne xettali leen ci nguur gu naroon a daanu ci lima ndax lii bu lawoon génn Tuubaa jàll ci région yi ci des xiif bi ak mettit wi nit ñi nekke ñàkk liggéey gi démb dama tuuti ma jooy du ab xale ab ab xale lu góor bu ma gis mu génn di manifester daal ne ba ma gëjee am ñaar fukk ak léegi kenn xamul kañ la ne lii soof nañu walooy nag dëgg dëgg daa xel woon nag googu de lëmm nag ñu naan ko di wax ñaar fukk nag ci ci ci jamono ji te mën a liggéey mën a def lépp nag loolu dafa dafa xelluwut kon dafa mel ne état bi moo njuum ci jël ay yoo xam ne dëppoot ak suñuy réalité euh, tubaab yi muy roy ñu ne confinement mu confiné mu ñu denk ñoom sax des confinement def nañ ko bàyyi nañ ñu ñu liggéey génn ñun ñu lànk fa tey yooyu nag ay couvre-feu yi yëpp xam nga ne confinement moom ñu ko def waaye couvre-feu lañ def ay couvre-feu moom it daanaka moo fii moo confinement yam rek bu ko defee tere gi ñu tere nit ñi dox diggante dëkk ak dëkk tey ralentir économie bi ñu bari dañ ci loro man mi ba gëjee génn Tuubaa ak léegi rek ay weer weer man na ko màggalu Poroxaan laa gëjee génn Tuubaa man nag loolu ci boroom kër nag xam nga <laughs> bu yàggee rek <laughs> bu ñaxtu tamit ku ma yooyu moo koy waral il faut nag état bi xam ne ni muy gérer problème bi bokkut ak nam mu ko war a gérer daal ni ko Europe di gérer ndax eh, Europe moom ñoom ay ay ay ay aide sociale yi ñuy def ak lu mu leen yoral lu bare bare bari gis nañ rek Trump ay ay Amérique ku ne ay weeru nañu jox la ay mille nangam euro wala mille nangam dollar euh, bu dul dara sax euh, ay réew Europe yi moom seen système social euh, sécurité sociale nga xamee ne kuñ toog looy dina am luñ la jox daa bëggut ak réew moo xamee ne bañ waxee ne sax dañuy saraxee ab ceeb ceeb ba sax mu ñu ko jëli ci barab sàngam yóbbu ko ci barab sàngam <laughs> kooku nag booy bëggee xool la tubaab yi defee defee da ngaa bëgg a dugal ci réew mi ci ab góote gu metti moo am daal euh, sëñ bi calmé na taalibe dal nañ waaye nag état na xam ne euh, kilifteef gu mel ne Touba gi ñëpp di ko déglu ci Touba rek la yam mën naa am boo amee jàmm fexe ba sëñ bi may ko jàmm tuubaa it mën naa am du ko am feneen kon nag nga profité ci jàmm ji sëriñ bi indi pour fexe jàmm ji law fépp mesures yi mu war jël pour alléger ku euh, nga ku fa la xama ñu def ko pour ni ñi xaw a nokki tuuti daal nag jàpp naa ne mënut a ñàkk ko defee émeutes yeeg coow yi doon am yëpp ndax nit ñi it nag xam nañ ne jafe-jafe am na kon nekkuñ fi bëgg a xeex ab état ak a kut ko kut nangam loolu yiteeluñu mooy woyofal ñu bañ mën a dund mën a faj suñuy soxla beneen bi nag ñu wax ko te mooy tawat ji nag ah kenn waxut ne amut waaye ba ñi wax ni tawat ji dañ ne aw ñeye ngi ñëw wala gaynde gaa ñey ñépp daw yéeg ca seeni étage wala làqatu ci seeni rondal tok di xaar ñu xor xaar-xaar ba ja gis aw sax muy saxu ndaw di jall di dem ah nit ñi nak buñ demee ba xamni li sax la nak duñ fi ray seen bop nak ñu xamna aw sax la aw sax nak mom du def liggéey day di def wala li li aw segg ak ñay di def tawat di kenn takku ko waye du gaynde de du seggit du ñayit ñay wi ñu waxon du ko agut sax ci muus comme mom ku ne gis na ne tawat yi am ci senegal gii ak afrique la ray ay junni yu kenn xamul nu mu la wala ay million sax yaad mu ne tawat yu dugg fi ñeen fukki ñeen <laughs> ñeen te mun def ci aduna bi dara ga li fi def liñ ko tuumal ni ko suñ bi waxee ku ko wax dara toñ ko liñ ko tuumal da bari lool ne mo ray nangam ne moo nangam ñu ngi wax kuñ ne moko ray mbokk yu nit ñe moo tawat ña kuñ kuñ ne dalaa dal ba bañ yóbbu la ci hôpital téye la fa yow da da nga koy ñee ndax kattan gam nekk ak wér ga ah tawat jooju nag sëñ bi ku ci bëgg a téye ab sëfoor ne ko doo ci liggéey borom kër nga ne ko doo ci liggéey ah <laughs> day jël yat nag <laughs> jàmbaar ndaw yow ya. état ni muy communiqué baaxul ni mesure yi baaxul ah nit dagit nag doo yàlla doo yonent bi Euh, ku def nag ku juum nag jël conséquences yi ku teg nit ñi luñ attanut ndax dañuy wax ne am amru bil ma'ruf wa nahyi anil kër ne sàrt la li ngay digle na doon lu luñ war a digle la ngay tere na doon luñ war a tere waaye ku digal nit ñi luñ luñ leen wurta digal wala nga tere leen luñ leen wurta tere ah <laughs> nit ñi duñ ko dul topp

ñoo suñu problème la ñun ñëpp ñoko ko bokk ku ne naxol nang wàll ga nga ci wara def no no no dalale xel nit ñi no and ak ñoom seen coona no leen jàppale no leen dimbalee ah loolu ñu ko defoon yaakaar naa du àgg fii ndax nag nit yi waaye mbir mi ni bërët ñu wut seen i télé eh, ji xam nga dañu ne jënd xam ñu tàmbalee saaga sëriñ si sëriñ bu fi waxatee kooku ñu naan alaaj njaay jël wax wax ju bon ju kenn mënta dégg nekk fi ab sëriñ bi yoonam ci ay tawat yow eh, eh, am sëriñ daal ma sa jël ab impôt ab sëriñ dañ koo fay ab yow état bi yow doonoo état bi état bi nga xam ne moom moom mooy jël impôt yi nit ñi moo leen war liggéeyandoo waxoo état di wax sëriñ luy sëriñ ci ak tawat ah, ma quel la ma je je euh, euh, jéem a daal di di di di jéem a boole sëriñ ak tawat ba je <laughs> mun ma ko comprendre mu nekk fi jël ah, euh, suñuy lenge war koo yor war koo doxal nga nag ngay dalal état hum yemuñ ci li gën a metti waa Tuubaa na xam naa ne jël dëkk bi moom mel ne mooy buntu sawara alal demal Touba ñëwal Touba Touba ko fa jógee dañ lay quarantaine teel teel teel teel tawat joo xam ne Dakar la cosaanoo fa la ëppee quatre pour cent ci kaay fa la ne dëkk yi ci des yëpp Touba la mu fi am du dara yi ci ëpp luñ jële ci àll ba indi ko fi la ngir centre bi fi nekk nga bëgg tamit nag diaboliser Touba noonu iste iste iste istagma iste ni nga waxee sax iste iste <laughs> ba la jox na ci man <laughs> stigmatiser leen ba kenn ah, loolu la sëñ bi nag day indi révolte day indi xol bu naqari euh, xam naa nag euh, ak cuuna daal laa ji gis ci nguur gi moom ni mu saytoo ni mu saytoo xew-xew bi dëgg dëgg ak cuuna gu méttee méttee métti la ma nak sunu serigne ci nak mom ak sunu kilifa yi mom ci diggante ci mom wane nañ ci nak nak ak responsabilité sans de responsabilité ak yërmande ak dondu ali sallallahu alayhi wasallam ci uma asnaka illa rahmatan lil alamin dondu Sallallahu alayhi Wasallam, bu wër jël sa alal jël euh, sa sa lepp nga nang ko bayyi bàyyi tere màggal yi xam nga lu tollé ak am nga koy tere màggalu kasu rajab mu ñëw lolu <laughs> boko défé rek serigne ba défé dëgg-dëgg am na responsabilité am na sens de responsabilité am na yëkki mbindeef yi ñu bàyyi lépp jël alal ji joxe ci digal taalibe yi ñu jimbalante sëriñ bi li ñu def ci ay mesure ak ak mbokkam mbokkam yu baax yi sëriñ bi fii fii fii lañ mën a yem taalibe yëpp tamit nag nangul ko ànd ànd ak moom ca loola toog di xaar bu lii lépp amee nag état bi xam ne nag tawat ji nag yàqu dara mënut a rey nit ñi defut dara tawati si buróo ngi fi sojo nga fi yooyu yëpp te dug eh, la la eh, eh, ñooña la def ki jigi waale waale ko ah eta tamit nak señ bi nak la señ Abdoulaye waxon rek señ Abdoulaye Abdou Diouf la ko waxon ba mi door fanu damay bañ sax wax ci kilifa ga ma ko jëlee waaye nee na woon wax na ko ñett bokk na ca waaw naa ko tëb daal ndax na bañ a dugg ci ay mbóot nee na ko daal dégg naa dangaa nangam waaye nag gaynde de bu duggee ci pénc ñëpp daw bu jàppee ne daw googee nit ñi dañ ko ragal tax mu toog fa ah bu yàggee day nee na bu mu fo nit ñooñee seen dugg gañ dugg seeni néeg dug ragal a tax waaye def pexe mu ko fa jële la nee bu seen pexe matee buñ génnee lu ko fa jële euh, euh, euh, dama dama dama ko waxee sax wolof yi neex a neex la waaw bu seen pexe sottee daal bañ génn <laughs> lu ko fa jële lay doon kon nag nit ñi buñ la respecté daw làqatu da nga leen di nag xam yemale loolu nag état nag mooy na ko Ibnu Arabi yi waxee ca ba muy wax ca fusuusul ba egsi ci fas euh, Suleymaan daal ne euh, kii fassu Suleymaan dafa ne innahu min Suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim nee na état mbóot la rek mbóot ak yërmande waaye buñ mm, daal ci wane misaal ne Balqiis Suleymaan bi muy wax dee baala Balqiis la wax nee na ni muy doxalee état am nee na lettre yi sax secret da koy làq du wax eh, eh, lettre bi nu mu ñëwee yooyu yëpp da naan dañ maa inni ulqiya ilayya kitaabun karim <laughs> waxut li ko fi indi yooyu yëpp nee na loolu mooy état kon secret yooyu làq ko ak wan nit ñi de mooy tax nit ñi mën laa topp waaye bu ñu continuer rek di taral ak a ñàngal ak a diisal ministre bu la gën a dof ñëw wax beneen ñëw gën a doppoor doppooral ah fa ñuy mujjee nit ñi daan ne ah kenn duñu rey nag di am jàmm bala nga naa rey nag mu yokk kon na ko état yi xam sëriñ bi nag moom gàcca ngaalam yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wér ko te yàlla mottali naal yi bëgg yépp ci loxom waaye day wane naw yoon de wan nañu yoon wan nañu yërmande eh, yàlla na ko fi yàlla dëgëral te it ñi dong la ñuy xaar ci ku mel ne moom taalibe yi tamit ñu leen di sant ñëpp leen war a sant ndax coono yi ñu nekk ak jafe-jafe yi waaye nañ ne kenn gënu leen a bëgg sëñ Tuubaa kenn gënu leen a euh, bu ñu juumee it bëgguñoo juum tey ji dañoo xiif rek ak sonn tax ñu fipp waaye bi sëñ bi waxee rek li gën a yéeme nit ku mer tàng di fipp di waddi waddi dégg kàddu kilifaam bàyyi lépp ca saasa loola loola kawe na lool kawe na lool kon daal loolu man laa amoon sama gis-gis ci sama wax ci lu ma ciy wax ci tomb boobu daal